kenn ki mineur la kooku du dem géej. je confirme donc loolu moo lay won ni. deux yee fitna cest à boo ko tàmbalee di nga xam ne ko tàmbalee mais doo xam fu muy yem. te du solution maintenant pour revenir ci li nga xam ne moom nga junj. Mhm. dafa di rek exemple yu fi tegu. te ñu bokk réew mi xam ni aussi tey toll nañu foo xam ne mën nañu régler problème yi nga xam ne mooy posé wu ci collectivité yi. Mm. parce que gis nga problème bi posé wu Gendar. Mm. moo posé wu ci mool yi moo posé ci Kayar ci maraîchers yi. Mm-hmm. moo posé wu feneen ci problème de terre ñu seex ak seen maire. Mm. te ne du fi am mais souvent. ci xatraayu lay doon da ngeen di jaar suñu kaw mais du fi am moom nag yoon yu taxaw parce que exemple bi mooy li nga xam ne nii moo xew leen di mbuur dama ko suivre particulièrement parce que comme nii dëkk intéressé biri ma beneen dëkk intéressé ko intéressé na ma muy ndaw yoo xam ne dañu amoon problème ak seen maire ca njëlbeen dañoo xatraayu manifestation ba njëkk def dañoo yàq la maire ba def ci terrain boo xam ne nii maire ba jëloon na ko pour jardin public moo bëgg ko def leneen ñu yàq ko ba ñu jàpp yóbbu leen garde à vue donc bu ñu nekkoon ñoom ci jaayante doole bi. Mm. xëy na danañ leen tëj. waaw ñoom ñooy ñàkk. moom ñu nekk ci seen biir gis ni ala kulli xaalin dëkk bi dëkk yoon la nañu dem ci yoon ba sës ba pare. Mm-hmm. ba yàlla def ñuy gis ay faay te li gën a garaaw mooy njiit yi des fois sàmmonte sax ak. li nga xam ne ni moom la leen askan wi dénk parce que njiit boo demee bay la baj di trafic ay këyit parce que tribunal la ko wax mhm. tribunal moo condamné maire bi pour ah, faux usage de faux et falsification de documents ñu fal la nga falsifier document ba tribunal daan la ci je suppose que c'est très mais mérite bi mooy mhm. dañoo dem ci wàllu yoon mhm. xëccoowuñu xatraayuñu te loolu tey am na ay voies yoo xam ne nii moom la ñu war a def bu dul loolu exemple beneen bi ma jeexalee foofu mooy loo xam ne ni préoccupé ñun ñëpp Dakar tey kenn nooyeetul amatul espace amatul ku ne mooy gis ñu ngi saax saaxee espace yi nekk ci aéroport Léopold Sédar Senghor terrain yi nu ne ñu ngi koy saax saaxee. ñu ngi koy saax saaxee nu mënti demee am collectif boo xam ne jóg na. Hmm. pour ñu préserver ko bu ñu ko deful espace vert ñu préserver ko pour l'instant. di def pétition pétition bi am succès te mooy Sénégal aussi loolu baax na mais pouvoir public ñoo koy war a expliquer am nañu ay loi ak réglementation xam ne bi ñuy def loi pour def conseil économique et social environnemental dafa am disposition yoo xam ne ci article 4 bi nga xam ne moo ko mettre en place dafa bind ne nit boo yëkkatee pétition ba am ci 5000 signatures am nga droit wala sax conseil économique social environnemental. Mhm. dafa am obligation. Mhm. saisir ci problème bi. ñu posé ko fa. te comme organe consultatif la mun na def après ay recommandations donc ay voies de recours. yu am na fi mm. te Sénégal nag am nañu chance mm. am ay loi yoo xam ne c'est très progressiste mm. donc yooyu voie yooyu waaw mais d'accord mais mais maintenant ma daaneel rek ma daaneel non c'est am na concours de non non non non waaw am na ay concours de circonstances parce que aussi nañ wax li fi nekk. Mm. très souvent dañuy am impression ni justice sax. Mm. day néewal doole ñi nga xam ne nii ñooy baadoola yi duñ leen topp. yàlla bu defee nag mu topp leen ñu xam ni loolu mu ngi fi ñu koy doxalee. alors Pape Djibril su ma déggee ñi jotoo yëpp lu mënoon a ñàkk la li xew nda euh, Guet Ndar. waaw lu mënoon a ñàkk la li gënoon mooy mu ñàkk. Mm. mooy alerte bi. Euh, bi nga xamante ni euh, defoon nañ ko fii ci jàkkaarloo Abdoulaye def ko ci chronique am Euh, souvent lu ci bari dañ koy gis muy ñëw hmm, mais duñu ci def taxawaay bi mat sëkk bi nga xamante ni war nañ ko ci def hmm. pour mu deñ ñi ci war a intervenir yëpp gis nañ tey ku nekk jóg na ku nekk wax na ci am na sax ñu dagg seen activité yëpp dem Ndar ah ne dañuy mastaw ak yooyu mais bi muy bi muy yëngatu ñu koy sentir muy ñëw ñëpp xamoon nañ ne hmm. loolu dina arrivé parce que li ma jàpp mooy ñi nga xamante ni ñoo jóg keroog di ñaawlu déjà euh, mbir yi ni mu demee parce que li ñu yàq yëpp suñu alal rek lañ koy jël financé waat ko mm-hmm. yàq nañ ba yàq ci loo xamante ni sax moomuñu ko ñun rek mooy siège OMVS boobu mënuñ moomuñu ko ñun rek mm-hmm. donc euh, loolu yëpp dañ koy ñaawlu ndaxte si kaw suñu kaw ndodd rek lay dalaat ñun ñoo koy financé waat mm-hmm. fayaat ko donc euh, di di di sant yàlla aussi parce que mënoon na am mënoon na lu nekk mënoon na ci <coughs> yàlla ci def sutura waaye li ma jàpp mooy mool yooyu bu ñu sañoon suñu xëyee dinañ am beneen yitte bu dul dem di taal ak lakk parce que loolu dafa métti jàkkaarloo di sànni xeer xëcc mbal métti na waaye xam naa ne lii ko gën a métti ndax dangay ngay dóori xeer di ñu lay dóor ay lacrymogène xeex xeex bu métti boo xamante ni je pense que am na leneen lu ko gën a lu ko gën a lu ko gën a kii donc euh, encore une fois euh, yu ñu am euh, nañuy jóg à temps ndax am na ñoo xam loolu rek lañ leen di fayee dañ leen di fay ngir ñuy dànkaafu yu mel noonu di fayda yi. Hmm. léegi nag euh, kenn ku ci nekk na ci assumer niveau de responsabilité am et encore une fois pour man c'est ay fin wu processus la xam nga à un moment donné Sénégal du tey lañu ñu fi wax licence pêche. à moment donné nee nañ on avait vendu nos côtes les plus poissonneuses. Hmm. waaw sunu côtes yi nga xamante ni dañu amee jën jaay nañ ko. loolu est-ce que est-ce que du depuis nguuru ñoom Birima temps PS la woon loolu coow li ni ngay wax yàgg na fi Birima la sànni xeer boobu. léegi léegi léegi fi ngay fi fi fi fi ngay fi ngay mooy li ma doon wax benn jour ci émigration clandestine bi fi xale bi di egg ci ñàkk yaakaar ñàkk pexe ba def aventure boo xamante ni dafay egg ci dootul am lu mu naan bay tour ndox di ko naan. xam nga loolu c'est très grave. Mm. mais ki nga xamante ni aussi dafay transcender yenn régle yi te moom bu sañoon day dem rek nappi daal di ñibbisi. nga xamante ni tey jii boo demee foofu noonu ñuy wax ci Saint-Louis la fa nekk tey jii ci ñoo xamante ni dañu xëy rek ñu ne la sa papa ñëwut xëy rek ñu ne la sa yaay ñëwul parce que ñu ci bari dañ leen di rey ci géej gi je pense que ne loolu ni ñuy defee leneen urgence nationale li ñuy def dialogue national nii pour man question yooyu nag moo jara a ñu ne nan la ñuy def ba parce que dafa am ñetti secteurs yoo xam pour man négligé bi ñu leen di négligé souvent dafay delluwaat suñu kaw te coow li daf ciy bari mais dañuy indi ay solution yoo xamante ni conjoncturel rek après mu daal di ñëwaat ñu daal di ci ñu daal di ci tey ji agriculture ci la bokk man gëw ma ne déwén duñu ñu waxaat problème mu campagne agricole tey ji pêche bi ci la bokk élevage ci la bokk cest à que loolu mooy question yi nga xamante ni centrale yi nga xamante dañ cee war a taxaw définitivement ñu ne léegi lu ñu wax ren nan la ñuy def ba déwén duñu ko wax lu ñu wax reen nan la ñuy def ba déwén duñu ko wax ba pare nag ñu dimbali leen aussi parce que koo xamante ni yow laajul amul salaire koo xamante ni euh, dooleem rek la yaakaar ak xam-xamam xamante ni xëy na jàngaloo ko ko état jàngalu ko ko ca maamam la ko donnoo wala ci baayam mais je pense que ni à un moment donné aussi nit soo ko yërëmul waroo ko yedd am na loo xamante ni daf dafa war état ci ñoom te xëy na dinañ soxla état ba tàyyi duñ ko fa fekk ay jàmbaar lañu ñu ngi góorgóorlu fexe nañu ba am métier nan lañu leen di dooleel ba wax ak tamit sunu omol sunu sunu sunu sunu sunu euh, dëkkandoo yi nga xamante ni moom mooy Mauritanie waaw ñoom la ñu ko seqal ba nga xamante ni dinañ mën a transcender définitivement ces problèmes parce que encore une fois bari nañu nekk Guet Ndar tey ñii seen papa la ñuy jooy ñii seen yaay la ñuy jooy te foofu lañ leen rey dara fekku leen ci buuba lu mu mënoon ñàkk waaye mujj naa am noo ko jàngatee. waaw mais c'est c'est vrai que lu mënoon ñàkk la je ne pense pas que ma gis benn nit bu sibiti en tout cas si ñu ciy waxtaan kenn ne c'est bien fait je pense que ñun ñëpp ñoo koy ñaawlu parce que pour pourquoi ñu koy ñaawlu parce que en fait en réalité Sénégal quand xamuñu benn benn genre violence bu mel ni mais aussi war nañ si am war nañ am jàngat euh, jàngat bi ñu ci war a njëkk am mooy fan la événement yi. successif yi xewee ak ñan ñoo koy def ak fan lañ ko wékk je pense que loolu dafa am solo ce qui s'est passé à Mbour kan moo def lan ce qui s'est passé à à Saint-Louis kan moo def lan lan mooy dénominateur common bi je pense que il faut ñu ñu xam loolu parce que euh, boo nee napp des euh, je pense que Sénégal fii dafa am ay ay mbir yoo xam ne pour nga teg ci loxo day xaw a difficile trop mais pourtant ñu bëri xam nañ ko moom mooy fan la xewee boo demee si euh, wax nañ ko fi Kayar amoon na problème nga dem Mbuur nga dem Géet Ndar hmm. mooy que suñu mbokku lébu yi ñoo fa gën a nekk di napp loolooy dëgg hmm. te je pense que état li mu war a njëkk def mooy que zone bu nekk rek war na ko pour xam yenn genre nit ñoo fa nekk ak ban comportement la ñu mën a am parce que ay nit yuy dug dund en communauté la ñoo xam ne dañuy gàddu benn benn tey ji nii dafay café chaque fois je pense que des fois ñu café dara reetaan fekk en réalité am na lu ci dëgg lu bëri parce que am na yenn quartier yoo xam ne boo fa duggoon di fa xeex ak benn nit gars yi dañuy génn sot la dëgg la dañuy génn sot la boo demoon fii ci quartier yooyu dem fa am fa benn problème ne gars yi balaa ñuy ñëw di mais parce que euh, dañu solidaire. solidarité mais solidarité boobu am na nuñ koy boolee mu mën a taal dara. je pense que loolu waruñu ragal quand même di ko wax je pense que ci euh, communauté yi nga xam ne ñoom ñoo gën a fonk kilifa ci Sénégal communauté lébu bi daf ci bokk. Mm-hmm. bi ci gën a organisé. ci la ci ci gën a organisé normalement si la bokk. mu am fi ay kilifa yu am solo yoo xam ne bu réew mi tey jii nii yëngu woon. am nañu ay jéego yu ñu ci war a def te communauté yooyu je pense que dañ leen war a di impliqué si mbir yu mel ni tout le temps pour que ñu yenn zone yi ñu fay quand di jiitu gars yi parce que am na ay et puis c'est partout dans le monde ah am na ay quartiers yoo xam ne su problème amee dafay mën na tàkk boo demoon Paris fële ca 92 xaw ma ah 93 xaw ma bu fa problème amee bokkul ak bu amee ca ca champs parce que ña dëkk ñëpp boo gisoon nit di di ren rendi benn nit tey jii nii police ñoo nekk kan moo gis ko rendi benn nit ñëpp nii la ñuy def même bu ñu ko gisee même bu ñu dee ay français. donc parce que loolu dafa nekk peut-être que. Mhm. culturellement loo xam ne c'est une réalité. parce que munu ñu génne loolu fan la xewee ñan ñoo koy def et comment on fait pour que fi nga xam ne zone yooyu nga xam ne quand même les gens sont assez assez chauds je pense que il faut ñuy anticiper pour éviter. ñuy egg ci situation yu mel nii moo xam ne en permanence dañu war a waxtaan ak kilifa yi pour que quand même ñuy jéem a anticiper ci mbir yu mel nii. parce que état aussi des fois dina dina reculer pour essayer de de de gérer une situation. il y a quelques années il s'est passé des choses si benn stade fii à Demba Diop. yooyu yëpp dañ ci war a am jàngat bu problème amee da ngay étudier exactement yan zone ak ñan la ñu war a impliquer pour que zone yi nga xam ne nit ñi dañu nekk. di am benn parce que état d'esprit ak façon de faire dafa am solo si nit. nit bi si li nga màgg si si ci ni nga la tàggatee nga mën a revendiquer dara mois je damay revendiquer que ni man sénégalais laa booy Médina laa dama koy revendiquer. Mm. donc su benn situation ne cëpp sama kanam damay convoquer loolu. booy naa warul def lii dañ koy ak fierté xam nga man booy Saint-Louis laa boo am na nooy mel ñu ne la yow ndar ndar nga dañ koy kafeeg ni tout le temps yow de ndar ndar normalement du ko yuusu neexee dañu gën ay ndar la ka dañoo am maanaa jàng tey c'est une réalité dañ koy kafe mais loolu dëgg la donc pour man société bu ñu ci nekkee loolu yëpp dañ ko war a intégrer comment on peut faire pour que pour que quand même euh, bu euh, coow yu mel noonu dafay am ci yenn zone yoo xam ne peut-être que il une façon de faire ou façon de vivre bu fa nekk dañu war a anticiper pour que kii yooyu bombe yooyu ñu leen désam désamorcer leen dès dès le début bu ñu gisee que ni problème am na ñu am ay nit yoo xam ne dañ leen di impliquer quand même si processus bi parce que si coow li ci coow li man j'aimerais bien déglu aussi kilifa aada yi c'est important tey ji nii waaw waaw non moom laa ne tey jii nii xaw ma leen ñu bëri ah su ma jégoon euh, grand sëriñ de Dakar. Hmm. Ablaye Matar Ablaye Matar Diop. mu mu mu def benn benn déclaration du ma bett wala mu jël ànd ak diw ak diw ak diw ñu jéem a saytu lan mooy problème bi. mënuñu leen si bañ a génne parce que en réalité euh, Pape Djibril wax na ko daal suñu nit dina dina dina def euh, dara muy nit wala muy muy régime di nga def benn affaire tey jii nii wala nga posé benn ak 30 ans après. conséquences yi commencé ñëw. mooy pourquoi amatuñu ndox amatuñu euh, jën yu doy bay. peut-être dem di dem feneen soxla dana moo tax damay wax tout le temps que ni borom ndomba tànk bu ci nekk bu ñu la joxee big ngay signé conjuguel fii ak 30 ans mën na bañ a def effet tey mais ëllëg mën nañu indil ay problème donc je pense que dafa bari ay gi mais li nga xam moo am solo ba am solo mooy yar quel que soit sénégalais zone boo mënti nekk dañu war a yar suñu ndaw yi ba violence ñu bañ ko jël aussi comme loo xam ne moom mooy jéem a régler seen problème quel que soit fu mu jógee. Mm. te amul benn zone ci Sénégal wala benn quartier wala benn gox boo xam ne.